ñaari numéros yi affiché ci écran bi benn bi nag moo am di waxee whatsapp beneen numéro bi di nga ko la wa radillah wa nasqa bi wa sallama illa billah al azimi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziara te di am mbégte bu baax Talal bi ngeen ñu sen seen micro pour ñu dimbali jaam yalla yi wasalaam waaw ñaan yalla bi bari na ci lo xamni dañ ko don ci suñu maam ndax ko ko xam suñu maam Samba Fall ak suma baye nga xam ni ñaankat yàlla la woon waaye duut comme façon bii nit ñi di ñaanee daañ toog rek di xaar nit ñi ñu leen di ñaanal ñoom mag ñi dañ daan ñaan yàlla boole ko di xëy di liggéey toogul woon di xaar jaamu yàlla yi waaye ku ñëw mu dimbalante ak yow sa soxla waaye li si ëpp tamit bëri na ñoo xam ne topp nañ ay mag tukki si fu ne si réew mi fii topp ay mag ban gërëm ñu bañ gërëm ñu may ñu ndigal jox ñu seeni secret bañ may ñu ndigal ñu mën ngeen a dem dimbalante ak jaamu yàlla yi moo tax jamono bi ñu faral di toog si diwanu Dakar li ci ëpp pour dimbali jaamu yalla ci walu ñaan yalla bi allah. wa la allah nimbal bi ala kulli alin mënta ñàkk ndax julit mënul lu dimbali morom julitam waaye doomu aadama li koy waral muy tëju dafa bëri xam nga rab dina jàpp nit ba lum yaakaar mu tas lum dugg mu yàqu ko ndax ku ne xam na rab bu bon bu jigul nit ni muy yàqale cat tamit dana jàpp nit jàpp nit ba tëj ko tey ku ne xam na cat li muy bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko mu ni bëri na gu dugg si mu ni na gëléem gu dugg si cin fekk lii moo ko fa dugal làmmin mu ni bëri na doomu aadama tamit bu dugg si bamel. fekk bët ko fa dugal kon ku ne xam ne cat li muy yàqal doomu aadama waaye incha allah rabbi képp ku ñëw ba yàlla may la sens ñu gisee wala ñu déggante ba nga jot si ñun dañ la dimbali macha allah ba nga tàqali ko cat boobu bu neexee yàlla incha allahu rabbi umu tamit dana yàqal nit xam nga lu ñu naan kumre moom la ñuy wax kumre si wolof umu li koy indi ay solante yére da koy indi solante dàll da koy indi ñaq jàmbur bu wàccee si ko xam ni ñàkk ko umu la yow it nga sol ko umu googu mën na la jàpp waaye macha allah yooyu yëpp lu si am doomu aadama daal bu dem ba nga xam ne yaakaar nga ni sa wërsëg lépp taxaw na wala jàpp nañ sa biddiw jàpp biddiw yi ni tamit dana def loolu ba du gis dara si boppam comme ni biddiwam di réeree noonu la ko wërsëgam di reere da ngay gis sa li xew jamono ji da gis waxambaane boo xam ne sax lu mu tegee attaaya sax da të te loolu baaxul nit ki même boo xëyut sax liggéey gont woo sa yaram de bu fekkee baax na dara luy gàllankoor doomu aadama nekku si yàlla dana tàggat ay jaamu yàlla yi ñëw di yëkkati seen alal di la ko jox même boo xëyut sax gont wala waaye macha allah li si mën a am daal képp ku ñëw daal danañ dimbalante ak yow bu neexee yàlla incha allahu rabbi mhm. waaw am na si loo xam ni lépp wàll alquran la ndax ñun dañuy liggéey alquran ak sunguf ak ay xob ndax boo xoolee maanaam xob lu mel ni wayansurukallahu nasran aziza boo ko xoolee boo ko adatee mi ngi jàpp 818 boobu mi ngi ànd ak xobu wasosor xobu wasosor boobu tamit boo ko adatee li ñu naan valeur numérique si wàllu chiffre boobu tamit mi ngi jàpp 818 kon mënoo jàpp bi bàyyi bi ndax ñaar yëpp mën nañu ànd dañuy liggéeyee noonu ndax garab garab boo gis daal am na aayal xuraan bu mu jàpp ça dépend nga xam ko wala nga ñàkk ko xam ñun dañuy liggéey si wàllu alxuraan dañuy liggéey si wàllu sunguf dañuy liggéey si wàllu ren même wàlli jat tamit dañ si liggéey incha allah. waaw jaaro moom daanaka sax man dama am kersa wax si ndax ku ne xam na jaaro sëriñ sépp a ngi wax jaaro boo koy wax sax duñ la déglu ndax bu yàggul ay nit rek ñëw nañ di ma kalaame loolu si wàllu jaaro man jaaro bi bi ma ko diw joxee ba léegi jiw joxu ma si te laaj na ma si nuwat ay trois cent nangam mille ma ne ko man de li ma xam si jaaro te wér la jaaro duñ tëb rek nit sàkku si yow ni damaa soxla jaaro rek nga dem si tëgg bi mu tëggal ko jaaro nga jox ko mu takk ko wala nga lem sa benn kayit dugal si jaaro li ma xam balaa nga ko jox nit da ngay téye jaaro bi juróom-ñaari fan am loo si werd am si waa bois sacré boo ko dugal ba mu mat juróom-ñaari fan nga am saafara boo bind saafara boo bind waa ji sangoo ko benn yoon mi ngi koy sangoo guddik alxamis bu ko sangoo guddik alxamis ba pare mu soog a takk jaaro bi bu ko takkee lépp lu muy yaakaar si wàllu àdduna bu neexee yàlla dina si jot incha allah rabbi te jaaro bi dana la dàqal ay bu jub si yow tamit dina la dàqal ay boo xam ne jub na si yow ak di la xëccal wërsëg boo xam ni dafay ñëw si yow maanaam ñaar daal lay doo dafay def défense ba pare dafay xëcc tamit wërsëg incha allah rabbi képp ku ko takk tamit yàlla dana la dimbali da nga xamanteek ay nit ñu baax te doo ko takk mukk di tumranke ak foo mën a nekk si adduna kenn du ko takk di tumranke bu neexee yàlla te ku ne xam ne taarixu jaaro si lislaam bu ko temps bi maye woon ma wax histoire jaaro bi waaye temps bi mayewu ko macha allah Hmm. waaw lu mel ni wàllu ndoxum siti loolu moom dañ koy faj te ndoxum siti li muy yàqal nit dafa bari xam nga ndoxum siti dina jàpp nit bay delloo sàkkareem sàkkare bi di gën a tuuti dana jàpp nit tamit bay yàq sperme ndax siti dafa am benn tàngoor bu metti bu muy amee tàngoor boobu mooy tax nit ki sperme bi bu sëyee doo am ferñeent pour mën a jur doom ndax dafay tàng dina jàpp tamit jigéen tamit bi amee siti même góor bi nga xam ne dara jotu ko bu sëyeeg moom bu sperme bi duggee foofu dafay yàq ndax tàngooru biir bi mu amee ndax siti ku ne xam ne ni façon ni muy def nit ñi nag bokkut am na daf leen def tàngoor am ñoo xam tam daf leen di def benn xeetu seddaay boobu seen yaram bi dafay sedd duñ mën a dund si benn période tàngoor duñ si mën a dund seddaay duñ si mën a dund waaye daal képp ku ñëw incha allah rabbi bu neexee yàlla jar nañ si ay càmp yoo xam ni dañ ko si joxe bu neexee yàlla bu ñu la ko joxee am nañ ñu yaakaar ni yàlla dana la defal saafara ndax ñaan moom comme ni ma koy faral di waxee rek ñaan dafa firi boppam mën ngaa ñaan ñu may la mën ngaa ñaan duñ la may waaye am nañ yaakaar yàlla moo ni ñaan leen ma ma may la képp loolu li ma fi nekkee pour nit ñi di ma ñaan ma leen di may incha allah rabbi am nañ yaakaar ni képp ku ñëw si ñun boo ñu sàkkoo dara danañ si def kéemtalaay suñ kàttan ba yàlla may la si ndam bu neexee yàlla incha allah rabbi mm-hmm. nit waaw macha allah ñi nekk biti réew ñi ngi jëflante ak ñoom bu baax te lépp luñ soxla rek ñu ngi def effort pour ñu jot si maa ngi am sax loo xam ni maa ngi koy bëgg a laaye rek sama mbokk sëriñ si ñu bëri ay jigéen jot nañ jaar si man di ma wax ni diw jox naa ko sama xaalis diw jox naa ko sama xaalis te yónnee ma garab loolu képp kuy sëriñ war na koy maytandiku incha allah bi bu neexee yàlla képp koo xam ni jox nga ñu saalal ak fépp foo nekk si àdduna bi am nañ ay GP yoo xam ni yàgg nañ ñoo yóbbul suñuy garab di ñu ko joxal bu dul GP tamit am nañ beneen yoon DSL yàgg nañ fa jaarale ay garab di ko joxe fu ne si bitim réew am na tamit xeeti ñaan yàlla xam nga nit ku ñuul tamit dafa gëm ni foo nga yëkkati dara rek teg ko si loxoom am na xeeti ñaan yàlla boo xam ni fi nga toog rek ngay toog nga wax ñu sa soxla ñu ñaan si jàpp suñ kurus mu faju dafa mel ni supposons ma misaala la loolu dafa mel ni tey orange bu la bëggee yónnee crédit du la wax ni jox ma sa portable fi mu toog rek lay toog yónnee la crédit bu bëggee dagg sa piis est-ce que def nan la jox ma sa portable ma dagg sa piis fi mu toog rek lay toog dagg sa piis noonu la mel ci baatiñ fépp foo nekk rek toog fa jaruñu lay jox dara bu fekkee buñ ittewoowee wax nañ li ñuy waxante ba juboo incha allah rabbi sa haajo dina faju yàgg nañ ñaanal ñoo xam ne sax duñ leen jox saafara waaw incha allah loolu dëgg la wàlli papier moom lu tumuranke la jamono jii te ñiñ si ñaanal bari na waaw waxuma nag ñëpp ñi ma si ñaanal yàlla dimbali na leen ñu waxuma ñëpp ñi ma si ñaanal de yàlla def na ñu jot waaye bari na ñoo xam ni dimbalante na ñoom te woo nañ ma di ma sollicité amul benn sëriñ bu la mën a wax ni ñëpp ñi ma mës a ñaanal seen aajo faju na ñëpp ñëpp amut waaw ñaan da ñaanal ñii seen aajo faju am ñoo xam ne des fois yàlla am nu mu defee te def te do programme yàlla moom kenn mënu si dara waaye képp koo xam ni jox nañ la saafara ngay déposé wàll kayit nga jël si dëkk boobu nga nekk nga jël suuf ba suuf tibb suuf sotti ko si saafara bi sangoo ko waxuma la wàll kayit waaye dëkk boobu nga nekk kenn du la fa gën a tedd te kenn du la fa ëpp wërsëg bu neexee yàlla di nga bokk si ñi nga xam ni ñooy gën a xamle si dëkk boobu te incha allah rabbi ñu la ko joxee heure déposé kayit bu jotee nga jëfandikoo ko comme niñ la ko waxee yàlla dina la may kayit bu neexee yàlla incha allahu rabbi bu neexee yàlla incha allahu rabbi. waaw ñu bëggoon xam tamit sëñ Fall euh, hmm. hmm. pour déplacement ma fekke ko. waaw bëri na dañuy di ñaanee noonu am na ñoo xam ne yàgg nañ ñoo déplacé ñu buñ ñu bëggee su bu ñu itteewee ñu dem fekk leen defal leen ay ñaan yàlla waaye nag li si ëpp pour ma wax la dëgg ay wàllu xaluwa la waaw xam nga xaluwa xaluwa nag bëri na façon nit ñi ñu ngi koy faral di wax Sénégal waaye ñu bëri xamuñ li xalwa xalwa dafa bëri ay façon xalwa dafa bëri ay xeetu xalwa yoo xam ne ak xeeti xalwa bu ne ak xeeti lekkam am na xalwa boo xam ne boo koy dugg tey ganaar rek ngay lekk am na xalwa boo xam boo koy dugg tey ganaar rek ngay lekk am na beneen xalwa boo boo koy dugg biscuit rek nga mën a lekk am na xalwa boo xam ne boo ko duggee doo lekk luy dund nen sax doo ko lekk wala lu jugee koo si luy dund waaye xalwa yooyu yëpp dafay faj aajo waaye dinañ ko faral di dugal ñi nga xam dañuy taxawal ay entreprise yu mag wala ay sociétés yu mag pour mbir moomu jëm kanam wala ñi nga xam ne lu maanaam koo xam ne footballeur la wala mbër moom boo xam ni dafa bëgg a samp wala footballeur boo xam dafa bëgg a siiw yàlla tuxal ko mu dem si beneen club incha allah rabbi loolu yàgg nañ see dimbalante ak ay nit ku ñëw daal dinañ si dimbalante yow bu neexee yàlla incha allahu rabbi. gis nañ tamit ak école bi di tijji. Mhm. Mhm. xale yi nga xam ne dañuy jàngi. Uh-huh. fayal hmm. hmm. te tamit hmm. waaw waaw allah loolu moom dafay am xeetu yenn xeetu ñaari ñaan la imma xale bi nga xam ni xelam neexut te bëgg na jàng mën nañ ko defal loo xam ni yàlla dana ubbi xelam bam mu sawar si jàng bi mën nañ ko defal tamit xale boo xam ne bu ndaw la bëgg mu ubbeeku ba mu jàng yooyu yëpp xeeti ñaan yooyu yëpp dañ ciy ñaan ma examen bu fekkee ñaari téeméeri nit a koy def kenn war a génn incha allah rabbi boo jëflanteeg ñun si liñ yaakaar yaakaar ko su suñuy maam ak yaakaar ko si mag ñoo xam ne topp nañ leen bu neexee yàlla bu fekkee kenn mooy génn kenn kooku am nañ yaakaar ni yow lay doon bu fekkee jëfandikoo ko nga liñ la jox bu neexee yàlla incha allah rabbi waaw. Euh, numéro yi ñu ngi koy def si 77 802 39. 39 wala nga wooñ ñu suñ beneen numéro bi 77 696 47 23 am na loo xam ne nag bëgg naa see wax ndax sonal na kër yi jamono ji te fàtte nga ma ko laaj te loolu mooy li ma gën a neex ndax yàlla daf ma see may te ma siy dimbalanteeg ñu bëri mooy wàllu ngóora te daanaka góor bu amul ngóora rek pour jabaram toog seyal ko du yomb waaye nag wàllu ngóora duma dañ di si wax lii faj ko yombut sëriñ su bëri fajuñu ngóora xam nga lu am nga ñëw si sëriñ mu yëkkati dara jox la pour guddi nga sëy yëg sa bopp te loolu tubaab bi sax mën nañ ko mooy li ñuy wax aphrodisiaque waaye man boo ñëwee si man nga jëflanteeg man bu neexee yàlla incha allahu rabbi garab gi ma la jox boo ko jëfandikoo onze jours da ngay wér ba peng te sa ngóora da koy amee comme ni nga ko amee woon te doo jëlati benn garab waaw loolu daal maa ngi koy wax ak leneen li nga xam tamit dama koy tëjee képp koo xam ni da ñëw si man di sàkku ñaan wàlli ñaan yàlla damay bëgg nga yem si man kase ma pareeg yow waye bëgguma ñi nga xamni dañuy ñëw ci yow dem si benen sëriñ dem si benen sëriñ man bu fekke da nga ñëw dima ma ci si man benn mbir lu melni walu ubbe ko tay damay bëgg nga ak man ba nga gis dara nga soog dem si benen sëriñ waye bëgguma ñaan lo xamni leer na ma ni sama buntu lako yalla yàlla pour may lako ko nga dem di ko askanale kenen waaw taamu nañ daal képp da nga ñëw ci ñun di ñaan yalla nga yam ci ñun bañ ak yow bu la nexé bo gisul dara nga dem and ak kenen macha allah Moustapha ñu lay allah lii moom mënuñu koo bañ ndax yéen ku ne xam na seen sit bi Pikine nim mel te ñu bëri itteewoo nañ leen ñun lii moo ñu war tasaare xam-xam dimbali jaamu yàlla yi gaa jat bi mayewuñ ko waaye ñu ngi leen di wax ni waxtu wi ñu soxlaa te bu ñu fekkee dakaar rek ubbil nañ leen bunt yi ñëw leen ñu wax xam-xam jaamu yàlla yi jëriñu ndax ñun si luñ baaxoo sax si suñuy maam feeñ ay wàllu image nii sax du suñuy mbir du ñoom it sax du seeni mbir ndax mag ñi gëmuñ lool gëmuñ ni woon ni ñaan yàlla dinañ dem ba di ko jàllale si média waaye comme que jamono moo dox te ku ne bëri na ku ne ngi jaar si média bi naxaatekat yi bëri na am ñenn ñoo xam ne sax yàlla defal na leen tuuti dëgg ñu mën a leeral ñi nga xam ni bëgg nañ baax ñooñu buñ dajeek ñoom mën a jot mbaax bu neexee yàlla ñi nga am mbégte ak kontaante bu baax di la gërëm di ñaanal yàlla def si Sénégal gi jàmm di ñaanal président Macky Sall tamit yàlla defal ko jàmm boo gisee ma ñaanal ko du dara xawma ko xamuma sax jabaram xamuma kenn ku ko jege waaye bu amee jàmm ñun ñëpp ñu am jàmm di ñaanal tamit ay jege ñaaleem ak équipe bépp mi liggéey di gërëm suñu yaay te di ko ñaa yàlla yàlla na yàlla saxal ko fi wéral ko aar ko sàmm ko ak mboolem jullit yaara bi di ñaanal suñ baay bi nga xam ne làkku na yàlla xaare ko ajana bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wasallam te yàlla def mu dëkkaal ak yonente bi sallallahu ma zalika ala llahi bi